Eh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si sangu sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam eh, jiital si nuyoo bi sëriñ Alxasan Seck eh, xalif général bu Canaba di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér. di nuyu sëriñ Alsaan Ñaan Seck chef village bu Canaba ak chef de quartier mu ko bokkal ñëpp fa tabarakallahu di nuyu imaamu ratib bu Canaba imaamu imaamu ratib sëriñ Seexu Amadou ak imaam yi mu ko bokkal yëpp fa tabarakallahu Euh, ñu ngi fii si kees si daara Amadou Mahtar Oustaz Amadou Mahtar Euh, daara bi nga xam moom lañ tuddee daara mam Ahmadou Ndak euh, fii si Kees ñu ñëw si programme bi nga xam ni mooy programme bi nga xam ne teg nañ ko si wàllu ndog yi ñu ànd seeg euh, suñu benn mbokk boo xam ne macha allah si daara ji la féete gën ñoo miin programme bi du ko defee rek moom la ñuy jox mu nuyoo présenté wu daan ñuy wax programme bi nan nan lay demee du ko defee ñu dugg si biir nit ñi laaj leen li nga xam ne mooy programme bi mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa dëkk bi yépp góor ak jigéen mag ak ndaw. tey yegg si ngeen ci daaray imaam Ahmad Ndack Seck. ñi amal bis boo xamante ni bis bu am amam solo la. mi nisaawul moominaat ñooy organiser année bu jot. ñuy defar ay ndogu yoo xamante ni dañ koy jegleel daara ji. seen njiit nag di soxna Fatima Gueye nekk taxawaay boo xamante ni soxna soo xamante ni taxawaayam taxawaay bu am am am solo la ci ci daara ji ndax yaakaar naa lii ba mu koy tàmbali di def nekkoon na loo xamante ni benn loxo loxoon boo xamante ni moom kese moo daan ñëwal ak i ay mbokkam ak i ay ay ay ay rakkam ak i ay magam ñoo daan ñëw daan ñëw doon def ay euh, ndog yoo xam ne yu imam baay la waaye dem na ba nga xamante ni yaakaar naa ñaari at wala ñetti at yi ci gannaaw ni nekk na loo xamante ni day dem ba dëkkandoor yi nga xamante ni ñoo ñu wër dañ leen di invité sax ci ndogo li mu nekk na bis boo xamante ni yéemalewuñ ko sax léegi ci ndongo yi kese dañuy dem ba da koy dem ba yaatal ko ba macha allah bon nag nekk na loo xamante ni loo am am am solo la bon ñu ngi leen di dalal fii si ci daara Imam Ahmed Ndack Seck macha allah euh, Oustaz euh, si présenté bu am solo boobu nga xam ne Oustaz Babou Ndiaye si présentation bu am solo boobu nga xam ne eh, defal nga ñu ko ñu ngi si daara maam Ahmadou Ndak euh, fii si Kees tey jii gis nañ taxawaayu soxna yi si wàllu waañ bi ak si wàllu daara yi tey jii ñi nga xam ni ñoom ñu ngi bàyyi daara ji xel ak di ko dégg yan taxawaay ak yan domaine la daara ji nekk Oustaz Babou. waaw sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax. di am di am cofeel lool ci laaj bi nga ma laaj am ci cofeel itam ci pour tontu ko macha allah daara ji nekk na daar joo xamante ni taxawaayam ci Sénégal taxawaayam ci tund bi am na am na solo solo goo xamante ni mën nee na xam fi mu muy tàmbalee waaye fi mu yem wax dëgg yàlla kenn xamul ko ndax daara ji boo duggee ci biir nit ku nekkam fi nit ku nekk gox bu nekk am na ko fa jógee tey boo jógee li ma la gën a kii boo jógee ba Mali am na ko xam am na ñoo xam ne Mali leen dëkk am na am ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Fuuta am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Tamba am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Ziguinchor am na ñoo xam ne ñu ngi dëkkee mbuur dakaar ñii dëkkee ba Tambacounda ñii dëkkee ba euh, maatam ñii dëkkee ba Rosso bon daara ji nekk na daara joo xamante ni nit ku nekk euh, mi ngi fi. nekk na daara joo xam ne internat la internat na bu ñu koy wax daara ji xale bu ñëw bu xasee ba def inscription ba pare bu xasee ba dugg moom macha allah lay tax muy génn mooy euh, mooy bisu bi nga xamante ni mooy feet yi kanaal yenn bis yoo xamante ni dañ leen di génn léeg-léeg di euh, fudd seen tànk yeeg yooyu di tàllal seen tànk yi yooyu de mooy tax ñu mën a génn waaye nag daara ji nekk na daara joo xam ne léppam léppam ci biir daara ji leen koy defee ndax nekk na daar joo xam ne première étape da ngay ñëw boo ñëwee da ngay jàng alquran ba mokkal ko léegi nag nga ñëw si deuxième étape bi deuxième étape bi am na franco franco euh, arabe franco arabe nag dafa dalee CICP ba ba ba bac macha allah yàlla mu ngi si defal xëy xewal nag di ñu si ba daara ji mi ngi dox ndànk-ndànk euh, di di di di di di di am ay résultats yu baax a baax a baax. Euh, macha allah euh, sëriñ Ba Oustaz baabu si kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkatiwaan nga ko si domaine boobu euh, tey jii ñu nekk si njàngalem koor ku ne xam ne njàngalem koor métti na ndax ku ne xam ne koor jot amul wante tey jii yéen nan ngeen jëlee ndongay nan ngeen di jëflanteeg yi si wàllu koor gi si doxin bi nga xam ne yéen a ngi koy doxee si wàllu jàng bi ak temps bu gàtt bi. waaw ñun ñun daanaka lii moom dañ see dañ see juddu dañ si juddu nekk ci moo tax dem neen ba miin ko miinee boo xamante ni sax daanaka buñ toogee di noppalu sax noppalu boobu noonu day nekk coono si ñun. dañoo dem ba miin ko ndax ne yaakaar naa ku ñi fi jugee ñi fi nekk si biir ñëpp tey waa ahlu kokki leen yaakaar naa ku jugee kokki ba ñëw ba tiim li leneen du la jaaxal tey nekk na loo xamante ni suñu njàng nañ ko doon defee. ba avant ñuy koor noonu leen di continuer di ko defee amul dara liñ ci wàññi. amul dara lu dut guddi gi nga xamante ni dañ koy naafila te naafila guddi gi daa am beneen système boo xamante ni moom leen koy defee dañuy daje ñu ñëpp ñu jàng alquranul karim bokkandoo àndandoor jàng ko bis bu nekk daan jàng ñaari xisib ba pare bokkandoor jàng jawsul jaw jawsul kabir buñ paree itam daañ bokkandoor oustaz jël euh, euh, def ab tafsir balañ fee pare daal yaakaar naa minuit mooy jot yaakaar naa bu jote jotee itam du tere heure bañ daan yeewu njël quatre heures et trois heures trente day euh, leen di yeewuwaan njël boobu naan yaakaar naa tey yaakaar naa weeru koor yi ñun amul dara luñ ci wàññi yaakaar naa weeru koor nekk na weer woo xamante ni loo yokk si sa jaamu yàlla dañ la koy gën a fulal bon nag amul dara liñ ci wàññi si suñ wàllu njàng mi. Mm-hmm. waaw bu la si bu bu bu fekkente ne daal wàllu njàng mi la. Mm-hmm. amul dara dañuy yokk kay waaye yokk wàññiwuñ. macha allah euh, tey jii nii ngeen nekk si wàllu ndogo yi ngeen xam ne chaque année euh, yéen a ngi koy defal euh, ndongo yi wante dem ba bokk ak dëkkandoo yi tey jii Oustaz Babou lan lay wax ñi nga xam ñoom ñoo koy bàyyi xel fii si Thiénaba TV ak ñi nga xam ñoom ñoo ko wër si réew mi tey jii ban appel ngay def si ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi xel daara ji ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def lii nga xam ne mooy tiraanga yi ban appel nga si def. waaw nekk na appel boo xamante nekk na itam loo xamante ni soxna yu jàmbaara jàmbaar seen taxawaay yemut ci koor rek seen taxawaay même korité xale ñuy ñoom ñoom ñooy futteeku ñoo toggal xale yi même même tabaski bi nga xamante ni corona bi ki woon na ñoom ñoo ñëwaatoon nekk xale yi tabaski ak ñoom lépp loo xamante ni am na fi daal nga xamante ni teraanga boo xamante ni ah, ah, xale yee ko moom ñoom daañ ñëw summeeku jàpp takk seen ndigg ah, dafa ay teraanga lii nag ñoom ñoo ko def seen coobere bopp ñoom nisaawul moominaati nga xamante ni soxna Fatou Gueye mooy mooy seen président mu nekk jigéen ñoo xamante ni du lii rek leen di def ndax dem na ba yaakaar naa yaakaar naa beneen association boo xamante ni mooy mooy mooy mooy association parents d'élèves yi nga xamante ni euh, sëñ Cheikh Cheikh Ndiaye moo leen jiite ñoom nekk na loo xamante ni tey euh, euh, seen liggéey. seen i liggéey buñ buñ ñëwee ba si conférence bi itam da nga gis a gis ni dañ dañ fa wanewaat seen liggéey li nga xamante ni ñoom ñooy dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm boolente ko ñoo indi ko jàppale ko daara ji ñoom daal du bis bi kese leen di jàppale daara ji kanaa bis bi kay dafa nekk bis boo xamante ni dafa dafa nekk ci biir koor gi nga xam ne day gën a fës waaye yeneen bis yi tamit bala ngaa xam ne lu tax ma ma lay wax ne ñoom dañuy li ñuy def dañ koy def sutura yaakaar naa si guddi ay deux heures de matin leen dog di dem na ma moom soxna Fatou Gueye ne ma oustaz Ba ma ne naam mu ne ma neen ànd ñi dem daral ba mo ma ma dog di jënd la may jënd de ba ko jëndee ci guddi gi andi andi andi andi gàtt yi ci guddi gi ci guddi gi leen ko defar pour bañ nit ñi gis ko mooy nekk loo xamante lu loo xamante suturo la la ko bëggee yàlla seede ne maanaam moom ñoo ànd ci guddi gi ñu jaan jënd gàtt yi ñu andi ko si guddi gi ñu defar ko ci ci guddi gi bon li ñoom li ñuy def dañ koy def sa sutura koo koo xamante ni daal parent d'élève la way jur la na nga na nga leen ñaanal te yàlla tax ndax am neen taxawaay taxawaay yoo xamante ni sax bëgguñu sax ñu ñu di koy wax ndax bu ñuy wax taxawaay bii ni nga xam ne dafa fës ni dafa nekk loo xamante ni boo amee ay mbokk ah foog nga invité leen si bis bu ñu toll nii ndax bisu yiw la bisu bisu teraanga la waaye nag day dem sax ba bu nekkul bis yi day ah, defar ay ndékkim andi ko si daara ji pour xale yi xewaloo ko loolu moom maan leen koy seedal ndax ñun ñoo nekk si biir daar ji ñooy dund li nga xamante ni tey ñoo ñoo xale ñooy bokk di ko dund bon loolu mën neen si seede. macha allah uh, oustaz uh, Babou si kàddu yi am solo nga xam ni yëkkati nga ko uh, di daara imam ahmadu Ndak ki nga xam ni moom moo ko jiite muy Amadou Makhtar oustaz Amadou Makhtar macha allah du ko defee rek du fekkee amul dara lum si dolli dañuy dugg si ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk si wàllu xéewal yi. Euh, ñu dugg euh, ñu wane seen mbette lépp luñ fi euh, joxe si lépp loo xam ne teral nañ ko doomu aadama yi rek yàlla na ko suñ borom def ay yiw bu bëree bëri si dara jeyant bi sallallahu alayhi wa sallam du fekkee fàttewoo dara rek ñu dugg si biir. waaw kanaa di kanaa di sant kilifa yi nga xamante ni ñoo dëkkee Thiénaba di ci sant suñu sëriñ ba ba ba ba ba Asek di sant itam sëñ Khalifa Ibrahima Seck di sant itam. imaam euh, euh, euh, ñu ngi sant imaam yëpp imaam yi cene bi yëpp rawatina sëñ Makhtar Seck ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm mboolem koo xamante ni kilifa nga nekk cene ba ñu ngi leen sant di leen di gërëm di nuyu itam suñu suñu yaay yaa yaa ana Seck di ko nuyu di ko siyaare di ko di sàkku ñaan itam si weeru koor bi allah ñu ngi jéggalu bu baax a baax liñ ci wax nag. ah euh, bu dee loo xamante ni lu dëng la ngeen xam ne matati doomu aadama la waaye loolu lépp lu si mat rek ngeen xam ñu sante ko suñu borom waaye dañoo bëggoon mu rafet macha allah. macha allah jërëjëf euh, li nga xam ne moom moo fi am fii si daaray maam Ahmadou Ndak te Oustaz Amadou Makhtar jiite ko nu ko defee rek euh, ñu ànd ak incha euh, allah kon ni ngeen ko gisee rek ba tey ñu ngi si waañ bi fekk fii ñi nga xam ni fa tabarakallahu ñu ngi ko ànd ak jigéen ñi si liggéey bu rep bi si wàllu tiraanga yi tey ji ñu ngi nekk suñu mbokku Aliou fa tabarakallah ñii doy loo ko jox ko kàddu bi nu ko defee moom la ñuy jox rek mu wane mbétteem wax ñu programme bi macha allah si li nga xam ni teg nañ ko si seen loxo ngeen koy rafetal si wàllu xéwal yi. asalaamaaleykum ah, ñu ngi nuyu ñëpp waaw ah, daara ji moom sunu daara la quoi ah, ndax mère mi nga xam ni mooy yaay daara bi tey lii lépp moom la ndax ñun këram la ñu nekk man moom doom laa quoi ñun ñi ñëpp këram la ñu nekk depuis nag bu affaire bi tàmbalee ba tey nelawatul defatul dara chaque jour mi ngi naan daara ji daara ji. kon kooku faaw ñun lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ñu jàppale ko ci moo taxoon bi ñu xëyee ba tey ñu nekk fi waaw pour jàppale ko ci liggéey beeg yooyu ndax liggéey bi du ay caaxaan mais ba léegi ñu ngi fi nekk di ko jàppale pour bëgg lépp daal yem ko waaw di ñaanal nag oustaz di ko ñaanal mu gudd fan ndongo yi fi nekk lu muy yéene si ñoom yàlla na antu ñoom ñëpp yàlla nañ dem ba wàcce fi kaamil ba dem nekk feneen ak feneen waaw daara ji daal ñu ngi si ñaan yàlla yàlla gën kaa suuxat loolu la ñuy ñaan a suba ba léegi ñu ngi fi di nekk si ab togg yeeg yooyu loolu lépp nag oustaz sa ko waral ak maire bi waaw. loolu daal lañ amoon ci daara bi na euh, wàllu yu mel nii. Ah. te euh, lii daara bi na ko. Mm-hmm. ban appel ngay def ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan di la bàyyi xel fii fii si daara yi maam Ahmad. doguma la mm-hmm. ma ne ko daara ji ni mel ni war na ñoom ay kii yoo xam ni. doy caaxaan comme euh, ay bonne volonté yu si ñëw jàpp ndax tey fi nekk soo xoolee. Euh, bari nañ bari koo xam ne il fallait tey am nay bonne volonté yu si war a ñëw jàpp jàpp si bu baax waaw te léegi moom ku liggéeyal daara yàlla nga liggéeyal waaw loolu daal laay lancé waaw ku am daal xam nga kuy defal yàlla mën ngaa ñëw si daara ji defal fi yàlla ndax alxuraan fi nekk waaw loolu kese fi nekk waaw loolu daal sànq maa ngi ko sama ji man ko gars yi daal war nañoo ñëw jàpp si daara ji bu baax a baax a baax waaw lool daal laa doon ci wax kon daal bis ni ki tey jël ngeen seen matuwaay yoo xam ni insha allahu rabbi doo leen fi jógee mhm. balaa mat dara di ngeen taxawal benn couleur euh, couleur boo xam ni mhm. insha allahu rabbi chaque année daal dinañ xam ni mhm. yéen daal jël ngeen seen responsabilité si daara ji insha allah sànq rek ñu ngi siy waxtaan maag sa waay ma naan ko dañuy bëgg bi beneen programme bu ñëwee ñu wax maire ndax affaire dafa metti il faut moom ñu mu délégué ñi ñi ñuy jàppale ko si wàll wi ñu jàppale ko si wàll wi nga xam ne daal pour affaire yi bañ a li tagatéem bi daal ñu ngi si ñu ngi si bu baax a baax waaw jërëjëf waaw di wax rek di ñaanal yàlla euh, kii nu mu tudd oustaz gudd fan waaw ba lu mu yéene si daara ji yàlla may ko ko waaw mu doon ay daaray daara waaw loolu daal la ñuy tëjee daal di ñaanal bu baax a baax hmm, jërëjëf macha allah ah, kon ni ngeen ko gisee noonu rek eh, ngeen gis ñu ngi noonu si wàllu xéewal yi eh, nekk si wàllu mburu mi yëfu njaayeen yi njóobeen eh, wàllu njaayeen yi nga xam ne fa tabarakallahu wàllu maynees bi wàllu temps yi mbur yi yëpp rek pour xéwalu njaayeen yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk rek macha allah nga gis noonu euh, ñu bëgg a teral euh, xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si daara ji waan di teral ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkkandoo yi waan di teral euh, usaas yi nga xam ñoom ñoo nekk si daara ji du ko defee rek macha allah rabbi xéwal yi moo nekk noonu kon yéen ñi nga xam ne yéen yéen ay bàyyi xel daara yi maam Ahmadou Ndak fii si kees usaas Amadou Makhtar jiite ko ak usaas yim mu ko bokk lépp macha allah euh, kon ni ngeen ko gisee nii rek euh, képp koo xam ni euh, yaa ngi gis image bi nga xam ni lii ku ko gis xam ni loxo war na see kon képp koo xam ni am na lum si war a dugal rek incha allah rak bi doo dégganteeg ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu liggéey bi si wàllu daara ji incha allah lu si waay mën a def doo jokkoo ñoom rek incha allahu rabbi dinañ ko bàyyi xel dinañ si jàpp bu baax a baax a baax a baax kon képp ku dégg suñu kàddu daal.

Euh, lépp lu waay man euh, si daara ji lépp lu waay man euh, si ndongo yi wante lépp loo xam ne si daara la jëm nit ki def si alalam du ko rëcc ndax ab yokkute si saahir ab yokkute la si baatin kon ñu ngi leen di defalaat appel bu baax a baax a baax a baax képp dégg suñu kàddu daal bala bala nga ni dara na nga jël sa téléphone du dee Wave wala Orange Money nga yónnee ko ñi nga xam ñoom ñoo yor liggéey bi fii si daara maam Ahmadou Ndak si kees Oustaz Amadou Makhtar jiite ko kon bii rek macha allah allah si liggéey bu am solo bi nga xam ni eh, mu ngi si eh, ànd koog eh, moroomu jigéenam yi te macha allah ku ne xam na ni lii ndimbalu suñu borom dong moo ko moo ko man nga ànd seeg njaboot gi pour wàllu daara tey jii ban contentement nga am si lii. salaamaaleykum wa rahmatulah. sant yàlla rek dañu yàlla boole ci lii rek sant yàlla rek. dañaan yàlla may ñu fan gudd ak wér ñu ko teewee rek. lii moom li ci yàlla boole dangay sant yàlla rek da ngay sant yàlla rek ndax mënoon na nekk leneen comme lii rek sant yàlla rek sant yàlla rek alhamdulilah sant yàlla rek. ñu nekk si weeru koor euh, ku ne xam weeru koor gën a lu nekk te yii ngeen waroon a nekk si yeneen itte euh, ngeen euh, def seen itte si wàllu daara. mais kenn tey jii mooy àddina. ndax yëpp daara moom lu si waaye def doo ko rek kon tey ban appel nga def ñi nga xam ne ñoom ñoo lay bàyyi xel euh, fii si daara maam Ahmadou Mbacké ñi nga xam ne bëgg nañ see dugal seen loxo ak ñi nga xam ne bëgg nañ bokk bokk tey jii duñ gisee Ndeye Fatou euh, yor micro di wax Ndeye Fatou moom ban appel lay def en tout cas daal muy daara ma amari ndaak muy daara fu manti doon lu waaye def lu dul fii rek yàq nga ko ndax lii moo jëkk te mooy mujj te fii moom lu fi waaye def sa bopp nga ko defal ndax fële nga koy fekk te def moom mënta ñàkk kon nag na ñëpp def fi nga xamante ni boo demee fekk ko fa loolu rek laa ñaax ñëpp rek sama mbokk jigéen bi nga xam ne bëgg war a bokkee wala tam euh, euh, léegi moom moom daara ji moom am nay groupe am na ñoo xamante ni ak numéro téléphone yoo xam ne buñ ku ci bëgg a bokk rek soo ñëwee mën nañ ci dugal lu xew ci daara ji ak lu ñuy dugal ci daara ji lu manti noonu da nga koy xam incha allah. macha allah yéen a ko déggandoo si soxna Ndeye Fatou kaddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko wante kaddu yi nga xam ne fa tabarakallahu euh, def na appel boo xam ne appel bu am solo fii si daara yi maam Ahmadou Ndak te Amadou Oustaz Amadou Makhtar jiite ko kon du ko defee rek incha allah euh, Serigne alfa ñu yéeg si kaw rek xool euh, yeneen image image yu am solo nga xam ne jëlee nañ ko si suuf yéegaat nañ si kaw fekk fi soxna yi si wàllu. tiraangay du ko defee rek soxna Roqee euh, ñu ngi leen fekk si xéewal bi. nga nuyoo rek salaamaaleykum. Talla ça va yéen si jàmm alhamdulilah gis nga ñu ngi nii ci affaire yi ndogu yi xam nga rek euh, ñu ngi daal si ndogu yi moom xam nga rek. ñu ngi ñaan daal yàlla nañu ko teewe at yu bëree bëree bay te rafetu fekkin ñu ñaanal oustaz yàlla bàyyi ko fi mu yàgg koo taxawee ak euh, soxna Faati Gueye ñu yàgg koo taxawee. ñu ngi nii nag moom di si jàpp ci liggéey bi ndax yaakaar naa moom àdduna moom fi mu lu waay def rek sa bopp surtout ma daara kenn liggéeyalul kenn kenn ku nekk rek sa bopp ngay liggéeyal yal na yàlla fay ci barke yeneen te barke alxuraan daara ji tamit yàlla yóbbu ko ci kaw ci kanam ba lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci rek yàlla defal ñu ko suñu doom yi ci daara ji yàlla ubbi xel yi ubbi dënn yi alxuraan romb leen ñoom ñëpp ñu mokkal ci jàmm ak salaam ak bépp daara bi ci réew mi yàlla sotti ci jàmm ju baree baree bari macha allah fan wu gudd waan ak ñu ko defal mboolem jullit yàlla nañ ko teewe déwén daal yàlla ko teewe déwén wa rahmatulahi barakaatu. jërëjëf euh, ko defee dañu am solo goog nga xam soxna wa yan kàddu la si tool maa ngi nuyoo bu baax di siyaar di kontaan macha allah ñu ngi nii rek di defar ñu ngi ci wàllu ndogo mi. di ñaanal bu baax a baax rek ustaas ñu yàgg koo fekkee yàgg koo taxawee di ñaanal tamit di ñaanal ta Fatima Gueye moom tamit mu yàgg koo def ñu yàgg koo fekkee macha allah yàlla defal lépp daal lépp luñ ci séntu rek yàlla fay ko ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam alquran moom lu ci yàlla loo ci def rek yàlla moo la koy fay ndax mbir yàlla suñu borom la maa ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp. di ñaanal ñëpp ndogu jàmm ak salaam rees ak jàmm di wax salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu moom. tey nga xam ni euh, moom ngeen gis noonu euh, di si daaray maam Ahmadou Ndak euh, radiyallahu taala anhu te Oustaz Amadou Makhtar jiite ko ak Oustaz sin ko bokkal ñëpp kon Serigne Assane lii dafa mel ni am na solo lool. wàllu njaayeen bi nga xam ne fa tabarakallahu. Ah, lii moom comme ni nga ko waxee rek liggéey la bu rafet boo xamante ne nii ñi nga xam ne ñoom ñooy Nisaa'ul Mu'minaat di benn association boo xamante ne bii ay yaayu daara la yu organisé wu ñoo xamante ne bii ñu am Pastef lañ ñoo xamante ne bii seen suba ak seen ngoon lépp dañ koy def ci li nga xamante ni moom mooy liggéey liggéeyal alquraanu karim lépp lu ñu am seen doole seen kàttan seen temps lépp dañ koo teyalee alquranu karim ñoom daal ci liñ ko waxee amuñ leen loo xamante ni bi nii euh, seen soxla la amuñ leen loo xamante ni bi nii teew nañ ko fii ak alquranu karim mu ngi fii di liggéey ak daara yi nga xamante ni bi nii euh, moom moo nekk ci Sénégal rawatina daara ji di daara Mame Ahmed Ndack Seck mhm. soxna Fatima Gueye nag moom mi nga xam ne moom mooy seen coordinatrice euh, dafa nekk di def ay liggéey yu ama ama am solo xam moom ay kàddu rek. yoo xamante ne nii dina allah ba tey rek ñu euh, nekkaat si suñu benn yaay euh, ki nga xam ne fa tabarakallah mu ngi si wàllu xéewal yi mama bi nga gisee lii ban yëg-yëg nga am ak ban contentement nga am si bis sant yàlla nag ci alhamdulilah rabil alamin di kontaan rek ci bokk ci ahlul quran rek santaat yàlla di sant sama mbokk jullit yëpp rek ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ñoo ma dooleel man mënuma aw ma boo wootee ñu wuyu si la nga laaj ngi jox la da ngay sant yàlla mënuma fay nit ñi mbooleem ku fi ñëw rek dugal nga ci sa loxo ma wax dañuy lebal yàlla mu fay maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla yàlla taxawu jullit yëpp ci barke alxuraan karim man dama mbég ba mënuma wax ndax li ma woote wéetuma ci daal te dañuy wax ne liggéey bu yàlla nangu liggéey booy def te sal amu ci wala defoo ko ngir puukare yàlla mën na la cee taxaw ba nit ñi nangu ko ci sa loxo te yaakaar naa nit ñi nangu nañ ko ci sama loxo ma ciy sant yàlla bu baax ci baat alhamdulilahi rabil alamin di ñaana jullit yëpp bàyyi ma mag ndaw góor jigéen amul benn nit boo xam ne am naa ak yow relation te dugaloo ci sa loxo ma wax ni yéen sama mbokki jullit yi yéen ñëpp rek képp ku doo seetaan lii yéen leer na leen ni lii yéen a ko def man defuma ko man munu ma aw yéen a def lépp. kon nag képp ku seetaan vidéo yi rek na nga santaat yàlla maa lay ñaanal yàlla fay leen mu nekk ci seen misaanul xasanaat mu nekk seen dawalu bàmmeel mu nekk seen jannatul firdawsul aala moom laa leen di ñaanal ci barke alayhi salaatu wasalaam waaw soxna Fatou Binta Gueye ndax mën nañoo xam lan moo tax nga bàyyi bërëb yëpp bàyyi nga ay yeneen bërëb yoo xamante ne bi nii am nañu fay dugal seen alal euh, amaana nag gënul waaye yow lan moo tax nga bàyyi yooyu bërëb yëpp tànn bërëb bi nga xam ne moom mooy bërëbu alxuraan fas yéene ci parce que ñoom dañ ma defal loo xam ne mënu ma leen a fay. ndax dañuy wax ni képp ki nga xamante ni moom jël na sama doom. mu dugal ci moom baatu xaraf alxuraan. jàngal ñu sama doom alxuraan. jàngal ko xam jàngal ko feq ñooñu su may ñoom laay tànn ñu nekk sama daara ku ne xam na ne sama papa mi ngi liggéeyoon ci daaray kokki macha allah waaye man daaray euh, imaam Amary Ndaak Seck mooy sama daara ndax ñoo ma mokkal ñoo ma mokkalal sama doom ñoo dugal xam-xam ci moom ñoo dugal alxuraanu karim kon aw ma seen fay. su ma amoon ay milliards sama nisat ci àdduna mooy ma jeexal seeni coono mënuma ko aw ma waaye yàlla am na may ñaan subhanahu wa taala mi nga xam ne moo am te yàlla na jeexal seeni coono may woo sama mbokki jullit yëpp ci daara ji képp ku bëgg a jaamu yàlla maa ngi lay woo ci daara ji di leen woo ci turu nisaa ul mu'minaat ñun jokk ñun ñëpp ñun jigéen ñu ñu jàppale daara ndax dooru daara dafa métti te foofu lañu ñu toll ma leen di sant nag jàpp ngeen bu baax bu ma limee damay juum waaye am na jigéen ñoo xam tey mënu ma wax li ñu def ci daara ji tey kon bàyyi naa leen ak yàlla rek bu fayal ma leen. incha allah yan kàddu ngay di sant yàlla am mbégte di sant yàlla bu baax macha wante di sant yàlla rek ndaxam ni ne bi bi biñ koy commencé ñu nga ko ci bis bi ma jëkkee woo oustaz ni ko dañu bëgg a indi ndogu ci daara ji man ak madame Babou ak ku ñuy wax sama benn frère bu ñu wax Modou Khoule alaaji doomu alaaji aat Khoule. ak sama benn xarit bu ñuy wax Delia Kane ñun ñoo cotisé woon defal ko ci cent vingt mille biñ koy woo oustaz di ko laaj lim lim bi mu ñu jox mooy limu yonent yi muy trois cent treize kon affaire bi mënul nekk hasard lim boobu laa jàpp ba tey ma xam ne yonent yi ñoo ci dugal seen loxo sallallahu alayhi wa sallam moo tax fu mu agsee dañuy naan ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu agsi fii kon nag maa ngi woo sama mbokki jigéen ñëpp ak sama mbokki jullit yëpp góor ak jigéen ñu ñëw am nañu ay groupe yoo xam ne ñu ngi fay liggéey ngir alxuraan dund ngir alxuraan taxaw te nit amul lu ndax li may wax toujours rek lépp lu ñu am fi lañ koy bàyyi waaye ñoo alxuraan ba ci biir bàmmeel ñoo alxuraan ba taxawaay yomal xiyaam ñoo alxuraan ba biir àjjana kon damay wax ni ñun ñëpp nañu ànd takk doon benn say jàpp ci alxuraan liggéeyal ko ëllëg mu nekk suñu misaanul xasanaat moom laay woot sama mbokk jullit yëpp di leen soññ waaleykum salaam wa rahmatulah. ay eh, def na ko eh, fii si daara ji eh, kon rek du ko defee sëriñ Assane yow mi nga xam ni yaa bokk ak ñun si daara ji yow mi nga xam ni yaa ñu fi nekkal tey ji nga dugg rek présenté ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak wan ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ñun programme ñaari gànna nii nii la sec sec nii la yaa ngi nii dawit bu yama yama yama taxawaayu jigéen vraiment ay jigéen ñu dajaloo def ci seen bi lu rëy la ci ci ñun di gis-gis te ci weeru koor ak màggaay weeru koor fu mu toll loolu xam naa dañ cee ay mbir yàlla rek moo leen joxe yàlla na leen fay yaa rafet loolu ñu def moment bi ñuy def loolu ñeneen ñoo ngay dajale seen alal ca leneen ñu rafetlu fekkee naa ko daaw heure bii daaw maa ngi fi ñëwaat ren mu defaat ni mu defoon yal na yàlla kattanal yal yàlla dooleel duñ euh, ko fu ma demee sama école ak faneen dinaa ko fësal wax ko fa am naa ci satisfaction am ci mbégte am ci contentement te progrès islam la vraiment vraiment macha boo amoon rek ay ndénkaan yoo xamante ne bii di euh, jox sa mbokk yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci biti yan ndénkaan lay doon par rapport ak alquraan karim taxaw nga xamante ne bii war nañ ko ko taxaw ak jàppale bi ñu war a jàppale. ah ndénkaan yi soril ndax ku def lii dèjà wane nga ni fonk nga alquraan yaa ngi dooleel alxuraan soo ñëwee ba ci daara ne xaaral ma jàppale daara jàppale ñeneen ca daara jox ndogu waa daara ak ay gan wane na ni ca ginnaaw alquraan moo fa yaa ngay jàppale alquraan di leen wax rek nii fi ñu teg seen loxo foofu la fi ñu teg seen tànk foofu la noonu la nañu ki euh, gën jëm jëm jëm kanam ndax alxuraan ku ko jàppale da ngay payoor gi te payoor gaa ngi ci kanam di ñëw vraiment daal man doon na loo xamante ne nii am naa su doon tubaab mu ni su ému am naa émotion bu mag ci loolu parce que lii ay góor yëngatu ba tey mënuñu ko ay jigéen su ñu taxawaay bii dafay nekk lu ñu rafetlu di leen ñaanal daal yàlla gën leen a xiir ci li ñu ne gën leen cee dooleel gën leen cee kattanal ba mbir mi gën a jëm kanam en tout cas daal daara ji moom xam naa ne kontaan nañu lool xëy na loolu autorité daara jee koy mën a wax kilifa yi daara ji waaye ñun ñii fi ñëw ñu invité ñu ñëw ci am nañ ci mbégte am nañ ci satisfaction euh, am nañ ci xel mu dal que ni fii moom avenir u jigéen assuré na ndax jigéen su lëkkoog alxuraan rek mooy wane ni avenir am taxaw na assuré na te teg na ko fu leer a leer a leer. waaw macha allah waaw man maa gën a kontaan maa leen di remercier ci occasion bi ngeen ma jox. Mhm. ma wax sama xalaat à quelques minutes ñuy waaj ndogu. Mhm. xëy na loolu sax xëy na yàllaa ko dogale noonu xëy na bat ci barke bi lay bokk incha allah rabbi je vous macha allah euh, kàddu goo am solo goog nga xam ne suñu kilifa gi wax na ko euh, fii si daara ji bu ko defee rek euh, ñu ñëwaat suñu beneen waajur bi nga xam ne macha allah moom moo moo ak ñun ci wàllu liggéey bi. Eh, ànd ak eh, macha allah eh, kilifa yi bu ko defee rek sëriñ bi asalaamaaleykum. waaye salaamtullah. sëriñ bi ñu la fekk si wàllu ndogu yi. Mhm. daara maam Ahmadou Ndaw. macha allah. nga xam ne mhm. kàddu sant yàlla ngir lu jëm ci wàllu daara moom dañu laan toujours lépp xéewal la. rawatina bu fekkente ne bu jëlee xadis yonent bi rek sallallahu salaam li mu wax si jullit ah, boo ndogul yool ba ca nekk yal na ko yàlla def si ñi nga xamante ni ñoo defar bis bi ba bis bi taaru lool te it nag ah, ñun amuñu lu dul daara ci daara la ñuy dund suba ngoon guddeeg bëccëg ah kon bu ñu gisee lu mel ni du ñu def lu dul santaat yàlla bu baax a baax ñaan yàlla nag at mu ne nag muy gën di ñu koy gën di def sa buñ ko defee lu ci am ci ay xéewal yal na ko def yàlla def suñu misaanu xasanaat yàlla barkeel bis bi sa defal ñu sutura bu baax a baax a baax. ñu ngi sant Oustaz Ahmadou Makhtar ba sant soxna Fatou Gueye mi nga xam moo initié mbir mu am solo mi nga xam lépp it xéewal la yal yàlla doole ko barke sa yokk ay xéewal euh, ñu yàlla jéggal juróom yi Baye Makhari mi nga xamante ni si moom la doon ne liggéey bu seel bu tedd bi euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ñun ñi ko fekkee lu luñ si am si xéewal yal nañ ko bokk ak suñu njaboot euh, jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran. macha allah. Mhm. barakallah. allah suñu daala kon kooku moo nekkoon sëñ Modou Gueye euh, di euh, frère rek ci nga xamante ne nii moom mooy soxna Fadima rek. ñoo ñëwoon si si daal di tey amal leen li euh, nga xam ni ndogu lu am solo la ndogu loo xamante ne nii ndongo yi def naan nañ ci kontaan loolu def naa nañ leen ñaan bu baax baax xam naa kon dañuy dem seetaan seen rek seq ak ak ay ay tontu ci li nga xamante ne nii moom ak ci wàllu bis bi nga xamante ne sëriñ ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. sant yàlla alhamdulilah. tur bi ak sant bi. lay fay. waaw Abdoulaye Faye ndax mën nañoo xam euh, sa euh, am nañ mbégte ak contentement di jàkkaarloog yow fa yéene seq euh, ay laaj ak ay tontu ndax mën nañoo xam yan yëg-yëg nga am ci bi nga teewee ci bis bi nga xamante ne bi nii ay jigéen yu dogu ay jigéen ñoo xamante ne bi nii ñu takku lañ ñoom ñoo ñëw daan seen doole yàq seen temps seen alal lépp sacrifié ko ngir satisfaire ñi nga xam ñoom ñoo njabootu alxuraanu karim yan yëg-yëg nga am bi nga teewee ci bis bi. waa xam nga nit moom surtout doomu jullit amul alxuraan daara nekk lu am solo nit ku nekk xëy na am nga jaar jaar ci daara donte même bu fekkee ne xëy na man yàgguma ci daara mais day dem ba li nga manqué woon bi ngay nekk xale tey jii boo demee ba li nga ko mën a dab rek mooy loo am nga dimbalee ko daara donc loolu defe naa ne am lu ko ëpp solo ci àdduna na xeex bu mën nit di mën a xeex tamit te xeexal diine xeex ci daara ba daara taxaw ba nga xam ne lépp lu manqué daara tey daara dabu ko moo ëpp solo ci àdduna donc loolu rek mooy sama teewaay fii. ba pare ma ci am mbégte ak contentement parce que weeru lu mel ni weeru koor nga dox ci tànk yu mel noonu wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax. lan ngay conseil euh, sa mbokk yi nga xamante ne nii ñoom nga bàyyi ci biti euh, ay conseil rek yoo xam ne da leen ko jox envers li nga xam ne moom mooy daara ak alxuraan. waa ñu gën a gëstu daara ñu bañ a xam ne ñu bañ a jàppee daara comme benn milieu boo xam ne rek milieu bu démuni la boo xam ne ku ñàkk rek fa war a nekk parce que tey jii nit ki bu juddoo bi la ñuy wooyu buñ koy mayee si suñu diine imaam moo koy mayee bu nit ki deeram bañ koy gunge imaam bi la ñuy woo moo koy jullee donc dafa commencé ci ñun nekk si suñu dund ba pare nekk suñu jeexital donc mu nekk lu ñu war a fonk nañu gestuwaat daara bu baax a baax a baax te xam ne lépp lu nit di def defoo ko ci alxuraan defoo ko ci yàlla ji pertement la waaw. macha allah Thiénaba TV ak Zahra TV ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf merci beaucoup. merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax di julli teg nañu si yoonu diine yar nañu aussi yar bu baax ba fuñ taxaw du ñeesuñ benn moroom wax dëgg yàlla buñ demee ba tey ñu dajaloo fii ñun ñëpp fekk si ko lii lépp moom la lépp moo ko waral di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ñu dund ba koy yóbbu màkka incha allah ci barke yonent bi kontaan nañ torop suñ xol sedd na. kontaan wax dëgg bëgguñu tee yëg suñu bopp. ndax looy defal yàlla rek defe naa ne defaloo ko sa bopp nga ko defal kon nag ñu ngi sant bu baax Serigne Diop bi fi nekk di sant bu baax Fatou Gueye di suñu mag di ñaan yàlla kenn bañ ci gis sa bopp lu fi waaye def ren rek bu déwénee yàlla na nga mën téeméer te yàlla na la ko borom bi fulal fayaat la ko ci barke Cheikhou Khadim ñu ngi koy ñaan yàlla. lu waaye def ci yàlla rek defaloo ko yàlla sa bopp nga ko defal jërëjëf ñu koy defal daara tey jii nii ku ne xam na ni daara ji laaj na ay ndimbal mhm. eh, tey jii ngeen nekk si ban appel ngay def sama xanaa ñu gersu rek ñu gersu daara yi ak ak sëriñu daara yi am na solo subvention bu ñuy defal mbooleem école française rek bu ñu xoolee ci lii xam ne ñun ñëpp ci yàlla la ñuy mujjee te ñun ñëpp lu ñu lépp lu ñu def rek yàlla dañu ko fay fi fay ko fa ñu jëm ñu jëm ko subventionné fii am na solo torop waaw am na solo trop macha allah waaw ñu ngi def lancer appel à tout monde vraiment toutes les bon volontés ku ci mën a nga def te yàlla rek tax yàlla rek tax waaw jërëjëf merci beaucoup. Euh, macha allah ba tey dégg ngeen suñu waajur boobu appel bi nga xam ni def na ko euh, si nañ bàyyiwaat xel euh, daara wante nañ jëlaat itte jox ko daara te ji suñu yaay ñëw nañ seew fekk la si wàllu ndog yi di wàllu daara yi tey ban mbëttee nga am si bis bi. sant yàlla rek. wax julli si yonent bi alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammad ñun dañoo kontaan te ki organiser lii dara bett ci moom man xaritam laa kóllëreem laa dakaar laa jóge mais diine rek a ko ñor foo toog moom loolu lay wax diineem googu dimbali na ma ci lu bari man ndax man dama jàngoon alxuraan jàng gumba moom moo tax léegi may tiim kaamil di ko liir ndax bu njëkk ba xam nga danga daan teg sa àlluwa rek di wax moom moo tax léegi may tijji kaamil di ko liir te saa bu ma ci amee avancement lu ma ko ci waxee noonu lay kontaanee kon kooku bu defee lii duñu bett ñu ngi koy ñaanal nag lu mën mën ni yàlla na mën déwén lu ko ëpp bi Gueye ku wax si moom doo pare nii mu. rek euh, si contentement bi nga xam ne am nga ko fii si liggéey bi wante fii si Daara Maam Ahmadou Ndak. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp àq ci koor gi te di baal ñëpp àq. di sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekkeewaat ko ren parce que euh, xëy na am na ñu nga xamante ni fekkeewuñ ko ñooñu ñu ngi leen ñi ñaanal suñu borom ba subhaanahu wa taala jéggal leen seen i leen fir daw si ñi tawat yàlla fëgg seen bopp bañ a tëral kenn incha allah di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp sutura tawféex ak taysiir incha allah euh, dañuy dañuy kontaan li tax ñi gën a kontaan mooy daanaka mën naa ne dañu déparé ci ci dañu déparé ci zéro yàlla def ñuy yéeg di yéeg bay yegg si fii te maa ngi naan léegi sama benn yaay euh, lan moo tax euh, ren ma gën a kontaan j'ai vu ñu bëri dañu ñëw àndaale seeni doom ak seen i sët loolu initiative bu baax la ñu nga xamante ni seen borom kër daawul ñëw sax ñi ngi ñëw ñi nga xam ne aussi seen soxna daawul ñëw ñi ngi ñëw loolu initiative bu baax la bu ko defee xale yi ñun bu ñu demee ba jéem a mag xale yi dinañ xam lan moo fi nekk dinañ xam ci lan la ñuy dox dañuy ñaan njaboot gi di gën a dox ci yoonu siraatal mustaxim loolu la ñuy ñaan waaye am nañ mbégte ak contentement bu baax a baax ñi ngi ñaanal ñëpp ndogu jàmm di ñaan yeneen édition yi yàlla yokk ñu wér ak kattan ak kopparu poos boo xamante ni xale yi danañ gën a kontaan incha allah kàddu yi ci baaxul rek maa ngi koy jéggalu bu baax a baax. Mhm. bu fekkee euh, jàpp na yéen ba nga si war li ñu ñun nag euh, li may faral di wax sànq kenn léegi kenn dafa am lu mu ma envoyé ma sañoon loolu mat mu ne ma man sama compte orange mu ne de 100 francs moo ci nekk ma ne ko ñun xeebuñu dara xeebuñu dërëm xeebuñu ñaar dërëm xeebuñu ñetti dërëm xeebuñu dara niñ koy defee ci sax léegi dafa gën a yomb. chaque weer dañuy dugal ci benn compte Orange Money wala Wave wala Kpay dañ ciy dugal dara nga xamante ni bés bi bu ñëwee taga tembe bu fekkul sax nga yor yow amoon na loo jot dugal ba pare kon ñi ngi ñaan képp ku mën rek di jàppale ñu nag ñu jàppale te yàlla rek tax parce que ñun yàlla rek moo tax ñuy def ku nekk euh, boo boo euh, soo demee li ñuy wax naan la nga fa jëf li nga jëf fii moom nga fay fekk moo tax xeebaluñ kenn dara parce que benn ñaar dërëm bu ndaw boo joxee mën na la dimbalee fële lu bëri moo tax ñu kenn dara dañuy ñaan ku nekk rek loo ci mën a jàpp rek loo ci def ren bu déwénee yàlla na ko yàlla ful nga gën ko yokk woo say dëkkandoo woo say xarit say am di jàmm ñëpp ñëw jàpp ci bés bi incha allahu rabbi euh, oustaz dañ koy ñaanal sutura dañ koy ñaanal wér euh, lu tax loolu moom moo ñu jàppale pour ñun ñu mën a ñu mën a def def lii en fait bu ko neexoon ne du ñu may ñu ñëw def si ko mais at mu jot euh, xale yi dañ koy xaar moom tam mu ñu koy yombalal macha allah ñi ngi koy ñaanal mu mu gën a am doole gu mu téye xaale yi mu yàlla yokk ko sutura ak wér surtout sutura ak wér daal ci la lépp xaj yàlla na ko yàlla subhaanahu wa taala yokk wér ak sutura bu baax a baax lañ koy ñaanal loolu lañ koy ñaanal. Euh, di gën a ñaax xale yi ñu gën a góorgóorlu parce que dañu tollu ci dañu toll ci fu nga xamante ni euh, dëkk bi léegi dafa doy waar dañu toll coo xam ne dëkk bi dañu doy waar man li may faral di wax mooy xale yi nañu moytu réseaux sociaux yi nañu moytu internet nañu dellu di gëstu mën nañ ca dugg sax mais nañ ca def loo xamante ni seen njëriñ moo ci ëpp en nañ def loo xam ne seen njëriñ moo ci ëpp di ñaan euh, yàlla sut suturaal leen ñu yàlla may leen ba ñu wàcc ba ñu mokkal incha allah defal leen ko ñoom defal ko suñu njaboot defal ko ñëpp incha allah maa ngi jégalu bu baax a baax di balu àq tamit. merci beaucoup jërëjëf macha allah. gi am na solo lool fa tabaarakallah yàlla yàlla fay eh, ñu ngi taxawaat ak eh, suñu beneen oustaz eh, fii si daara imam Ahmadou Ndak mm-hmm. oustaz ku ne xam na ni daara lañ wooteel. Mm-hmm. ngeen nekk si ku ne ku ni ni mm-hmm. si wàllu si wàllu koor ban contact nga am ak ban appel fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin yal na yàlla barkeel oustaz ci barke Seydina Muhammad yàlla fay leen yéen ñi nga xamante ni yéen a ñëw pour médiatiser ko ngir wane teraanga yi nga xamante ni waa Nisaa'ul Mu'minaat ñi ngi koy def ànd ko ñi nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni association parents d'élèves ñëw fii ci fi nga xamante ni mooy daara moom Ahmadou Ndak Seck fekk fi ay dongo yoo xamante ni lépp loo xamante ni war na ci ñu koy defal teraanga ci nit rek ci dongo yi jàng alquran la gën a war te sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa waxoon ni bépp teraanga bu nit di def ak jaamu yàlla bu nit di def bi ci gën a kawe mooy idqaalu taami fi batnil juu'i tabbal benn tibb ci biiru koo xam ne dafa xiif te tey jii ku gis ni euh, sal xabaru kal ayaan yaakaar naa ni gis moom bokkul ak naan dégg naa te tey ji ku xool fii xool ñii yëg ni taalibe yi ñoo ngi leen di teral ñoo ngi leen di sagal ci lan ñu woor weeru koor woor ko ci weeru alquran defe ko ci bërëbu alquran ñu fekk leen fi di leen teral pour ñu ndogu ba regg mel ni xale yi nga xamante ni ñoo ne ci biti ni ñuy kontaane ñoom pour defaleen loolu ñi ko def ñu nisaa ul muminat yàlla na yàlla barkeel leen ci barke sayidina muhammad di lancer appel nag képp koo xamante ni jullit nga képp koo xamante ni bëgg nga sa nga def ko ci yoonu yàlla ñuy wax ni xaaj Baye Xuseyn fii mooy bunt bi fii mooy fi ñu ko war a def ndax nag tabe xam fooy tàbbala ko gën damay faral di toujours ni tabe xam fooy tàbbala ko gën ndax am na ku tabe koo xamante ni xamagul fu muy tàbbal ndax kii tagg yonent bi ko jox 10 000 fekk ki way way mu baat rek ko ay milliards kon kooku tabe na may xamul fu muy tàbbal kon ki tabe mooy ki xam fi muy tàbbal te yaakaar naa fii mooy tàbbalukaay bi mooy fekk xale yi nga xamante ni ñooy jàngal Alquraan woor weeru koor heure ndogu ci daaree Alquraan nga fekk leen fi jël sa wërsëg accompagner ñi nga xamante ni ñooy association parents d'élèves yi ci njiital ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Ndiaye ak ñi nga xamante mooy Nisaa ul Mu'minaat ci ki nga xamante ni mooy njiital soxna Fatima Gueye ak ñi ñu ko bokkal ñëpp rek mooy képp koo xam bonne volonté nga rek ñi ngi lay woo di la wax ni daara jaa ngi ni ndongo yaa ngi nii poosu yàllaa ngi ni ku mu neex def ci te nag yàlla waxoon na ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah képp ku lebal yàlla di nga yëg ni compte bancaire am du jaawale benn ndax compte bancaire conte compte barke ba jege yoon waaye ñu te yàlla dina fay incha allahu bayu seen incha allah am na mbégte bu baax a baax Serigne Mor Niang. Mhm. waaw ban la affaire rek ngay lancé ñi nga xamante ne bii aussi ñoom ñooy dugal seen alal ci feneen foo xamante ne bi nii newul. Euh, mhm. euh, Firi Daara ay yeneen bërëb yoo xamante ne bi nii na nga koy tàbbal seen alal waaye comme li nga wax sànq rek xamuñ fan ngay tàbbal ñooñu ban appel nga leen lancé boo xam ne nii pour guider leen pour dimbali leen wax leen fan mooy yoon bu baax. xam nga yàlla bi muy wax. daf ni wa jaahidu xaqa jihaadi baatu xaqa jihaadi loolu boo koy xam mooy def fi nga war a def. moo tax yàlla wax ni euh, des fois mu wax ko yaa ayyuha lazina amanu aminu yaakaar naa noonu la bàyyi seen wala juum na su ma juumee del gàggan ndax alquran moom ci daara ji ko ko fi wax am nga beneen problème gaa yi gëm gëm leen su ko yàllay wax appel boobu waxu ko pour wax kook ñi nga xamante ni ñoo gëmul yàlla mais ñi gëm yàlla lay wax ni yéen ñi gëm gëm leen lan lum ci bëgg a wax moo yéen ñi am wërsëg saraxaat leen ma ko man yàlla ñu ni ko yàlla yow ñu ne sarax wërsëg fan lañ la koy saraxe mu ni mooy fekk fu mel ni daara internat imam ahmadou ndaak Seck wala fekk daara joo xamante ni seen i borom am nañ soxla nga fekk leen fa dimbalee ma fa bu ëllëgee lépp loo xamante ni laaj nga ma ko man yàlla ma delloo la ko ndax bi ma ko soxlaa nga ma ko jox ñu ni ko yàlla kañ ko soxla mu ni mooy bi ñoom Baye Xuseyn nag gars yi di nekk ca daara ja daara metti lool sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane di ko faral di wax ni daara ñagas la baaxoo waaye ñagas jur jàmbaar ñagas jur góoru yàlla ñagas jur boroom xam-xam mu ni bi ma fay nekk ca ñagas-ñagas ya yéen a ma fa fekkoon kon ñi ngi wax ni képp ku am looy def wala fooy tàbbal tàbbal ko fii ndax fii mooy point bi fii lañ ko soxlaa te fii xale yi ku leen dimbali bu ëllëgee ñu taxawu la ndax ñooy xale yi war a taxawu ëllë euh, àdduna ëllëg ñoo ngi wax ni képp kuy tàbbal daal bàyyi seenu na ko def fii ci daal di Ahmadou Ndack Seck. Thiénaba TV bu baax bu baax di la ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ñaari télé la yoo xamante ñoom partenaire daara ji lañu waa Thiénaba TV ak Zahra TV ñoom nga xamante ni so infatigable laa leen tudde ci liggéeyu daara ji parce que ñoo ngi koy wane ñoo ngi koy yëgle ñoo ngi fexe ba képp ku ñu xam daara ji yegg fa yal na yàlla barkeel di wax ni lépp lu ñu juum ñun la parce que ay taaba taaba lañ ci biti waaye waa daara jaa ngi taxaw lépp luñ ci juum ñoom danañ ko defaraat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kaw fi la yi nekk fi nga xamante ne bi nii fi la waa alquran karim nga xam ne ñoom ñoo waral lépp léeg li nga xamante ne bi nii moom mooy bisi xam naa dañuy dugg rek euh, janoo ak ay quelques ndongo yoo xamante ne bi nii ñoo fi nekk daal di séq ak ñoom ay laaj ak yi tontu bu ko joxe seen xalaat rek ci li nga xamante ne bi nii moom mooy bis bi nga xamante ne bi nii bisub alquran karim la xam naa ni euh, sëriñ Souleymane Seck am nañ mbégte ak kontaan bu baax a baax di jàkkaarloo ak yow euh, Thiénaba TV ak Zahra TV ñoo leen nii bu baax a baax ah.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 di indi ci biir daara ji tey boo fekkee bis bi en tant que ndongo en tant que koo xamante ne bi nii yaa ngi ci euh, école bi di jàng alxuraanu karim waaye itam nekk ci franco bi nekk ci lycée bi di waajal li nga xam ne moo bag boo gisee euh, waa sa al Muminaat gis liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom lañ def yan sentiment nga yëg en tant que ndongo alxuraanu karim waaw Baye Xasan dama lay jaajëfal bu baax a baax di rafetlu question bu baax a baax a baax lii euh, da nekk mbir moo xamante ne mbir mu am solo ndax dañ naan alal baax na lool waaye rawatina bu nekkee ci loxo loxoy waaju baax ndax boo xoolee misaal muminaan wala misaal muminaat ah, chaque année dañuy def lu mel nii maanaam yëkkati seen i alal moo xam ay juróomi dërëm la wala ay ñaar dërëm la boole ko ñëw fekk xale yoo xamante si ni amuñu benn bàkkaar ñu préparé leen ndoog loo xamante si ni mucc ayib la loolu nag dafa nekk loo xamante si ni acte bu rafet la waaye acte bu am solo la ah, gis nga teraanga lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu bari bari bari lu mu baax baax baax ah, waa daara ñoo ko gën a yeyoo ndax ñoom ñooy njabootuk suñu borom léegi ñoom bu ñu xamee loolu yëkkati seen alal ko defaat ci njabootuk suñu borom loolu sentiment bi ñu ci am mooy ak kontaan bu baax a a baax tamit di leen remercier di leen ñaanal di leen xam ne lii euh, njaboot gi nekk fii njabootuk suñu borom la lépp loo xamante ni da nga ko fee def du nekk du nekk pertement kon ñu ngi leen di ñaanal di kontaan bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def waaye tamit di am mbégte bu baax a baax a baax ci li nga si ni chaque année ñu ngi koy jàppale daara ji indi seen alal li nga xamante si moom leen yàlla wërsëgalee mu tuuti wala mu bëri ñu indi ko ci daara ji bokkoog ndongo daara yi loolu yaakaar naa acte bu rafet la waaye acte bu noble ñu ngi di ñaanal yàlla lépp loo xamante si daal luy euh, xéewal ak teranga yàlla yàlla dafa si teg seen loxo ci. macha allah am nañ mbégte ak contentement bu euh, di na yàlla na li nga xamante ni moom moo ci gën. kon yeneen rek ay ndonga li nga xamante ni moom mooy seen gis euh, gis-gis par rapport ak li nga xamante ni moom mooy euh, bis bi Mor Diop ñoo ngi lay nuyu. a ah, Mor Diop nan nga gisee bis bi nga xamante ni bi nii bis bu alxuraan la suñu yaay ju baax ji soxna Fatou Madi Gueye ñëw ci daa ji indil leen ay ndogu ban gis-gis ak ban contentement nga am dëgg-dëgg ci bis bi. da ngay rafetlu bu baax di ko ñaan yaa nga yàlla fay di ko ndogu yi neex a bari na. macha allah ñu ngi ko ñaan yaa fay. la ma am ci yëg bu baax ñëpp kontaan nañ nga ñaan yàlla ko yàlla fayoo. jërëjëf jërëjëf mu nekkoon ki nga xamante ne bi nii euh, moom mooy Mor Diop xam naa dañuy démarrer rek ci euh, ki nga xamante ne bi nii moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Ahmadou Diagne mu nekk ci ndongo yi Ahmadou Diagne na nga def. maa ban contentement nga nga yëg bi nga xamante ne bi nii tey sa yaay ju baax ji soxna Fatou Mary Gueye ak Nisaa ul Mu'minaat ñëw nañ indil leen ndogu ji ban contentement nga yëg dëgg-dëgg. te moom kontaan naa baax te moom macha allah mm. kontaan naa baax waaw. ñaanal. ñu ngi ko ñaanal xal na wér gu yaram. incha allah ah, jërëjëf jërëjëf euh, mu nekkoon nga xamante ni moom mooy Ahmed Diagne Khalifa Seck na nga def. maa ngi fi. Ah, na nga def baa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw maa ngi nga bu baax. waaw ndogu nan la demee. déwén neex na neex na neex na kontaan nga. kontaan naa lan ngay ñaanal ni saa ol mu'minaat sa yaay yu baax yi nga xam ñoom ñoo la ko indil. yaa ñaanal bu baax baax. Euh, ñaanal yàlla. taxaw leen waaw taxaw jërëjëf jërëjëf yow it yàlla na yàlla barkeel la may la alquran euh, euh, ju rafet rafet Moustapha mbay laa jàkkaar lool Moustapha na nga def maa ngi si jàmm kontaan nga kontaan naa ba ndogu nga bu baax a baax waaw maa ndogu li nan la demee neex na lool neex na lool waaw ah kan moo la gëndil Tane Fadou Gueye Tane Fadou Gueye waaw ah ban euh, ñaan de ngay ñaan Tane Fadou Gueye waaw yàlla na gudd fan de laa ngay ñaanal mm-hmm, macha allah te mu baax waay yàlla na yàlla barkeel kon maa ngi jàkkaarloo ak eh, nga xam ne moom mooy Babacar Sarr Babacar Sarr na nga def. maa ngi jàmm. ah baa ndog nga bu baax a baax. waaw kontaan nga. wax xam nga kan moo indi ndogali tey. maa fatigué maa fatigué. bi nga ndogoo lan nga yëg. ah alhamdulilah. ah gën ngaa kontaan bu baax. ndax am nga ñaan goy ñaanal daal Fadou Gueye moog ñi mu àndal. mu gudd fan ànd ak wér. macha jërëjëf. yàlla yàlla nangu boobule ñaan kon xam naa damay daal rek eh, dem xool sama mbokk mbokk jigéen ñi. laaj leen euh, seen gis-gis par rapport ak li nga xamante ne bi nii moom mooy bis bi maa ngi jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy euh, Ndeye Fatou Dieng na nga def. maa ngi fi. ba nga bu baax. waaw. ndogu demee. neex na bëri na taafaat gi indi nañu ndog lu neex suur nañ lekk nañ ba suur dina ji bëri na mburu mi bëri na lekk nañ ba suur macha allah yal na yàlla yokku yal na yàlla yokku wéram guddal fanam. yokk ko xéewal gu bëree bëri saawaan baawaan. macha allah saawaan baawaan noonu la ñu def rek daal di jàkkaarloo ak keneen euh, ci suñu mbokk jigéen ñi euh, soxna si na nga def. maa ba ndog nga bu baax. ndog na bu baax. ndog li ba neex na. neex na bés. xam nga gën moo la ndog li. tan Fatou Gueye ku baax la. ku baax la ku sell la. yal na yàlla yokk xéewal gi bu bëree bëri lu mu bëgg yal na ko yàlla may yal na ko yàlla dooleel xéewal. amin amin waay xam naa dañuy xoolaat keneen rek soxna si na nga def. maa ngi ba yaa ngi sant yàlla bu baax. ndog nga bu baax. waaw ndog li neex na. waaw. xam moo fi ndog li. Tapha Gueye waa Kër Cécile mu ko fi indi. ndog ba suur. kaas yaa ngi nii. ndog nañ ba suur mbuur mi neex na am na doom am na ndog nañ ndog nga. ndog naa ba suur. ndog daaw li ak bu ren ban moo dàq. ren moo moo dàq. waaw. yaa ngi koy ñaanal baax. maa ngi koy ñaanal baax mu am maa ngi koy ñaan bu baax mu am fi mu am xéwal dem màgg yàlla may ko yàlla dugg àddina gën a kawe. waaw jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf am nañu mbégte ak contentement bu baax a baax kon xam naa ni dañuy xoolaat keneen de euh, laaj ko gis-gisam par rapport ak li nga xamante ne nii moom mooy bis bi soxna si na nga def. maa ngi fi. bàyyi sant yàlla un. alhamdulilah rabbi. ah nan nga gisee ndogali tey. ah ndogali de macha allah kontaan nañu ñun ñëpp suñu xol gi dégg na ndogu nañu ba suur comme ni nga ko gisee rek waaye dañuy ñaan yàlla yal yàlla yokk xéewal bi te tamit yàlla dëgal dem màkka di xam naa ne dañuy demaat rek euh, taat dañuy demaat rek ci ñeneen ci neen donga laaj leen seen gis-gis par rapport ak bis bi nga xamante ne bi nii euh, soxna Fatou Mata Gueye moom moo ko taxawal euh, ngir teral ñi nga xamante ne bi nii ñoom ñooy donga yi kon sëñ sëñ Talla ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la ak macha allah euh, sëriñ Assane euh, lii dafa euh, man dama see am mbette. ndax damaa dugg xale yi mel ni ñoom ñooñu ñu sax gën a bëgg lii. te daan nga dem si daara bala ngay wax xale sax gis nga kanam gi tëju. wante ku ñëw si daara ji di nga xam ne xale yi firéeku nañ bu baax a baax xale yi li nga xam ne mooy yar bi. Euh, li nga xam ni mooy doxit bi li nga xam ni loolu la parents yi gën a bëgg si xale doo ñëwee di ko fi gis euh, xale yi tëjuwuñ doo ñëwee ñu ngi kaf ñu ngi ree du jàng jotee dinañ bàyyi lépp dem jàngi moo tax bi ma duggee daal euh, lépp lu ma daan sentir si daara gis naa ko si daara yi maam Ahmadou Ndak yi wante gis naa ko si daara yi maam ki nga xam ne moom moo ko jiite muy amadu Amadou Makhtar Oustaz amadu Makhtar Diop macha allah si waxtaan bu am solo bi nga xam ni Euh, fan yi rek maa ngi koy dégg si moom euh, kon xale boo xam ni euh, nee nañ mu ngi si Oustaz amadu Makhtar rek xel day dal waxuma la nga ñëw li nga xam ni moom moo nekk si moom muy jikko loolu lay def si xale yi moo tax képp ku andi fii sa doom sa xel dina dal ndax xam nga ne Amadou Makhtar xol bu laab xol bu rafet wante gëm kër gi wante euh, gëm lu dul daara gëm li nga xam ne mooy alxuraanu karim loolu rek la gëm xam-xam rek la gëm wante tariixa bi rek la gëm kon kooku mooy Ahmad euh, Oustaz Amadou Makhtar lii daal am na solo lii daal bi ma duggee ba jàkkaarloo xale yi euh, sama yaram dafa daw ndax ñoom ñoo ñëw ànd ak ñun si liggéey bi ñoo ñëw bokk ak ñun si liggéey bi li nga xam ne moom mooy waxukaay bi sax ñoom ñoo doon njëkkante pour pour wax seen bopp contentement bi nga xam ne am nañ ko ñoom ñoo doon njëkkante di wane seen mbégte fii si daara ji ñoom ñoo doon njëkkante di wane ni ah ñun daara ji ñu nekk kat suñu xel dal na fi suñu yaakaar dooleeku na fi suñu am-am ak suñu ngëm-ngëm si daara ji mu ngi fi kon xale yi daal euh, Serigne Assane man liñ ma wan ak li nga xam ni moom laa gis dal na sama xel si daara ji nga xam ni mooy daara yi euh, maam Ahmadou Ndak fii si kees wante di daara yi Oustaz Amadou Makhtar kon du ko defee rek euh, ñu bàyyi la nga defaat euh, tuuti euh, interview fii si xale waaw macha allah jërëjëf Serigne Talla am nañ mbégte ak contentement bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy sëdd yooyu nga def xam naa oustaz almudir Mouhamadul Moukhtar Diop jëmbat ci ñoom moom rek mooy feeñ gan gu ñëw comme ni nga ko séedewee noonu la koy séedewee mu nekk loo xamante ni bi nii lu rafet rafet xam naa aussi dañuy demaat rek xoolaat quelques xale rek laaj leen li nga xamante ni bi nii moom mooy seen xalaat waaw soxna na nga def. yaa ngi ci jàmm. ndog nga ba. ndog li neex na. li neex na bari na. lan ngay ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo la indil ndog li. lan ngay ñaanal daan Fatou Gueye. amu aaju màgg. am xaalis bari. amiin ñoo si daal di toggal. yaa tamit yàlla may ah, si na def. na nga def. maa fi. yaa ngi si ndog nga ba suur. ndog neex na. neex na kay. kan moo ndog nga ko. mën nga loo koy ñaanal. yal na ko faas ba yal na ko yal xaar àjjana yal na ko yàlla dimbali yal na ko yàlla fay. amiin waay jërëjëf jërëjëf. baax. Ah, ndog nga baax a baax. ndog nga baax. ndog li baax neex na. neex na kay. Ah, bi nga ndogoo ba lan nga yëg. da kontaan wala. kontaan naa kay. ah xam nga kan moo la indil ndogu li. xam naa ko. nu mu tudd. Fatima. daan Fatou Gueye. ndogu daaw li ak ndogu leen ban moo dàq. Eh, ren. ah ñaar a neex. ñaar yëpp a neex. Ah, lan ngay ñaanal nag ki nga xamante ne nii moom mooy Tane Fadou Gueye mi nga xamante ne nii moom moo bàyyi lépp rek ñëw ngir bégal leen yéen waa alxuraan loo koy ñaanal. mu gudd fan ak wér te continué di di kii kon yàlla continué ko di ko yal yàlla nangu yoolee ñaan xale moom yàlla subhanahu wa taala euh, koy nangu euh, sëriñ bi na nga def. dama rek. noo dudd. Modou Fall. Modou Fall ndog nga bu baax. neex na wala. neex na kay. daaw yaa ngi fi woon wala. waaw déedéet. ah kon yow ndog li rek nga fekkee bi nga ndogoo ba lan nga yëg da ngaa kontaan wala. damaa kontaan kay. ah kontaan bu baax. waaw ba ñaana nga ki nga xam ne moo la indi ndog li. ñaanal. nekk si jàmm. ah loolu moom mooy ñaan gi jërë ñaan ku am jàmm rek am nga lépp mooy Baye Moussa Seck fas yéene seq ak moom laa laaj ak ay tontu Baye Moussa na nga def. si jàmm bu baax baax. sant yàlla nga bokk ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom mokkal alquranu karim euh, nekk ci biir daara ji di jàng euh, nga xam taan Fadou Gueye bu baax ak liggéeyam bi nga xamante ne bi mi ngi koy def ci alquranu karim tey bi nga ndogoo ba pare lan nga yëg Baye Moussa. ah macha allah yal yal na yàlla baax daal. amuñu fay waaye yàlla na ko yàlla fay. amiin waay yàlla ñaan googu noonu xam naa dañu duggaat ci biir rek euh, ngir gën a gën a gën a euh, euh, seq ak xale yi laaj ak ay tontu par rapport ak seen gis-gis ci li nga xamante ne bi nii moom moom mooy bis bi sëñ bi na def. maa ngi si jàmm. yaa si jàmm bu baax. ba ndog nga ba suur. neex na. waaw kan moo la indil ndogu li. yaa ngi ñoom baax. maa ngi koy ñaanal bu baax bu nga jullee ba pare mbëgg ba pare lan nga ko ñaanal. yàlla yàlla yàlla yàlla dimbali yàlla yàlla yokk fuul ak ak ak sant. amiin waay yàlla yàlla nag yooyu lay ñaan a ah, ñaan jërëjëf ah, sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa dañuy demaat rek ci ginnaaw ah, xoolaat ñi nga xamante ne bi nii ñoom ñooy nongay laaj leen seen gis-gis par rapport ak bis bi nga xamante ne bi nii soxna ma Gueye moo ngi nii sëriñ bi na nga noo tudd. baa ndog nga bu baax. ndogu li neex na. waaw ndogu daaw li ak bu ren moo dàq. ren bu moo dàq. waaw kon daa waaw loo ko ñaanal. lu lu mu bëgg. yaa ngi koy yàlla may. amiin amiin. wa waa keneen yàlla bu leen daraja. amiin amiin waay. te yaa naka yàlla dugal si si li gën a mag. macha yow it yàlla na yàlla may la alxuraan ji rafet amiin waay yàlla na yàlla rafet. jërëjëf Baye Moussa kon mu ngi noonu dañuy demaat rek euh, ci biir euh, seq xale yi laaj ak dont seen gis-gis mu mel ni daal xale yi daal tey kontaan nañ loolu am nañ mbégte euh, seen kanam leer na nañ ñoom ñëpp boo leen gisee ñi ngi reedaan dañuy sax yàkkamti nga jox leen micro bi ngir ñi feeñal seen mbégte feeñal seen contentement feeñal sentiment yi nga xamante ne bi nii moom lañ yëg ci nga xamante ne bi nii moom mooy bis bii nii xam naa damay dem rek seeti sama xarit Daouda maa yaa ngi sant yàlla bu baax. waaw. nga ba suur. waaw. ndogul neex na. waaw. kan moo la indi ndogul yi. Fatoumata Gueye. daan Fatoumata Gueye. waaw. bi nga jullee ba pare ba ndogu loo ko ñaanal. yàlla na gudd fan. amiin. ak na. yàlla na tëgg si kàbb yal yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla aar. amiin amiin yàlla na yàlla nangu ñaan googu kontaan nga bu baax a baax a baax. waa waaw di continuer ñaani rek ñaani am na solo dégg nga. waaw jërëjëf yàlla na yàlla may la alxuraan ju rafet rafet yow tamit. macha allah xale ñi ngi noonu comme ni ma ko waxee woon sànq rek dañuy am euh, dañuy yàkkamti loolu ngir nga tàllal micro bi ngir ñu mën joxe seen mbégte ak euh, seen contentement par rapport ak euh, bis bi nga xamante ne bi nii moom mooy bisub alquran karim xam naa damay delluwaat rek ci sama cameraman daal di li nga xam moom mooy micro baax a baax di am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bi nii moom mooy. sëñ Mouhamadou Fall bokk ci magu daara yi euh, nekk koo xamante ni ku jàpp ci liggéey bi la sëriñ Mouhamad maa ngi lay nuyu. waaw sëñ bi bu baax te de te de mu bis mu gisee bis bi nee na trop ki nga xamante ne mooy temps Fatou Gueye ak ñu mu àndal ñi leen sant di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal seen fan. wante lii nekkul tey kese maanaam chaque at si biir koor gi aajo dinañ teg nañ bi aajo daa koy def waaye lii moom ñu leen ñaan yàlla yàlla yàlla guddal seen fan. lépp luñ bëgg si alxuraan rek yàlla yàlla sotti bari alxuraan seen kaw si bëgg seen sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne kii bisu ren bi moom moo ëpp ay xéewal moom moo gën a bari ay teraanga loolu euh, euh, ban yëg-yëg nga ci am kontaan nga ci de. waaw bis moom kontaan naa si bu baax te ñoom chaque at ni ngay defee chaque at chaque at nañ ñëw di jàpp si liggéey bi jox xale jox leen loolu te ñëpp ay am ñëpp ay am ñëpp ñëpp mm, te nekk daal di kese ñi nga xam ne mooy waa koñ bi ñëpp nañ ñëw ndaw jërëjëf sëñ Mouhamed Fall ñu ngi lay jaajëfal baax. waaw jërëjëf jërëjëf. macha allah kon xam naa damay euh, xoolaat rek beneen ndonga laata may euh, dello micro bi ki nga xamante ne bii moom mooy euh, sama caméraman xam naa damay xool rek nga xamante ne bii moom mooy Serigne Fallou sek wala sëriñ Ñambi Seck rek ma laaj ko gis-gisam par rapport ak bis bii nga xamante ne bii bisub alquranu karim la Ñambi Seck na nga def. maa si jàmm. Ñambi bis bi. bisu neex na tabarkalla macha allah. Ah, ba ndog nga baax. ndog naa ndog li neex na. neex na daa mel ni ndogu moo dàq bu daaw bi de. waaw moo dàq kay. ba bi nga ndogoo bare ñaanal nga Tante Fatou Gueye ak ñi mu àndal. waaw ñaanal mu gudd fan. ñaanal mhm. ko ma ma am xaalis bu day mën a jàppee waa daara yi macha allah jërëjëf mu nekkoon ki nga xamante ne nii moom mooy Ndiamé xam naa damay delloo micro bi rek sama caméraman euh, euh, incha allah fii ak euh, ay simili yu néew rek danañu dikk ci li nga xam ne moom mooy cérémonie officielle bi nga xamante ne bi nii kilifa yëpp daan ci deew na am ay jàng alquranu karim na am li nga xamante ne bi nii moom mooy ay waxtaan yu am am solo kon jërë ngeen jëf à tout à l'heure Thiénaba disposition pour la couverture de vos événements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 غير أن نسونه